jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a ngi déglu rajo réew mi FM 97.5 ñu daal di dellu siwaat ci seen émission pencum réew mi euh, tey jii si samedi ji Abdou Khadre Seck moo nekk ci micro bi du Diaw Diallo moo nekk ci wàllu technique bi mbokk yi nag euh, tey ñu dellu am mbégte daal di dalal Abdoul Malick Bousso mu nekk membre ci bureau exécutif bu Forum Civil Sénégal moom la ñu invité tey. Euh, Abdoul Malick réew mi FM ci sama tur euh, ma ngi lay nuyu di am mbégte ak kontante ci wisi bi nga xamante ni euh, wisi nga ko sunu invitation bi ngir ñu jàpp ne danañu waxtaane loo xam ne dina jariñ réew mi. jërëjëf sëñ Abdou Khadre di delloo rek di li sama bëgg bëgg ak kontante ci invitation bi ngeen ma invité invité forum civil pour mu ñëw weccook yéen. li soxal askan wi eh, fi ñu toll. jërëjëf eh, Abdoul bu so ñoo ngi nuy waa Forum Civil eh, yépp ñoom Birahim Seck di am mbégte tamit ci taxawaay bi nga xamante ni am ngeen ko ci ci Sénégal yéen waa forom Civil. ndax saa su nekk yéen a ngi xeex di ñaxtul askan wi di leen yee ci lu ci lu baree bari léegi nag waxtaan wi fi ñu koy commencé mooy li nga xamante ni tey moom mooy rapport bi nga xam ne kuréel gi xayma di natt fan la corruption toll ci réew mu nekk di Transparency International dafa génn benn rapport yéen waa Forum Civil Sénégal ngeen daal di fësal li nga xam ne mooy rapport boobu ñu gis ne euh, réew mi ñu nekk di Sénégal euh, depuis 2016 ba léegi mën na ñoo wax ne fa mu yemoon ci wàllum guerre ba léegi amul lenn lu si yokk te mag ci zone rouge bi Euh, yéen rapport boobu ndax mën nga ñu si dellusiwaat ci ay leeral yu ndaw. waaw jërëjëf euh, sëñ Abdou Khadre rapport boobu ci Transparency International di tuddee indice de perception de la corruption day xayma tolluwaay ger bu mag bi ci réew àddina bi. Euh, chaque at nag dañ koy génnee am na beneen jumtukaay bu tiyaayu yore Transparency International mu tuddee ko baromètre de la corruption. kooku day xayma li ñuy wax ne euh, ger bu tuuti bi mooy euh, joxlante yeeg euh, li xew ci mairie yeeg li xew ci tali beeg bële nag mooy ger bu mag bi nga xamante ne contrat marché public yi la yorinu réew mi la gouvernance su réew mi la kooku lay indice de perception di de la de la corruption lay xayma yàgg nañu siiwal indice bi ne xool nañ ne entre 2012 ak 2016 Sénégal defoon na ay jéego jéego yooyu nag lu ko waraloon mooy que euh, nguur gu wees boobu euh, président de la république Macky bu mu ñëwee dafa ne day jëmmal xeexu ger euh, mu transposer cadre harmonisé des finance publique bu UMOA indi ko ci suñu législation interne mu créer nag dugal Sénégal ci ITIE réformer Cour des comptes dékkali CREI yi pour atte ñenn ñi nga xamante ne dañ leen tuumaloon tuumaloon euh, yorin bu ñaaw yorin bu muccul ak euh, bu sellul ci li nga xamante ne Sénégal moo ko moom comme ressource financière loolu def euh, bruit bu rëy ci Sénégal ci bitim réew xool bi ñu doon xoolee Sénégal muy ñii di financé développement bi ne ah ñii de volonté politique a ngi fi pour jéem a noddanti li fi newoon mu tax Sénégal jóge 37 points ba 44 cinq ñu xool nag euh, bi fekkee euh, atte nañu euh, sëñ Karim si Karim wàdd mbir mi dafa mel na dafa taxaw. rapport yi nga xamante corps de contrôle yi ñoo ko doon produire di wone gouvernance réew mi fan la toll daanaka. corps de contrôle yi publié tuñu rapport wala defatuñu rapport euh, ñi nga xamante ne woon ñu ngi woon ci liste procureur de la république Alioune ndaw euh, ñoom it euh, dafa ba léegi dafa mel ni mbir mi dafa dafa taxaw loolu nag tamit ëlbati xelu nit ñi ne ah li fa newoon de woon ni na donc ci jàngatu sénégalais yi ci jàngatu nit ñi ci jàngatu rapport yi nga xamante ne ñoo ci ñoom la ñu basé wu pour def indice bi perception sénégalais yi ci xeex guerre bi dafa dellu ginnaaw dellu ginnaaw ba nga xamante ne 2016 ba 2020 45 euh, points yi ñu amoon 2016 moom la ñu am chaque année ba ba ba ren ren ji loolu nag dafa wone ne président de la république bi nga xamante ne moo ŋànkoon xeex guerre bi moom mooy clé de voûte institution yi moom mooy buur di bumi daanaka moom moo taxaw te moom moo naxasal xeex wa parce que euh, boo leen fàttalikoo ci euh, discours bi mu mujjee def nii euh, entretien bi am ak journaliste yi le 31 décembre après le discours à la nation président la république ci boppam moo ne rapport yi nañ ci def ndànk moo am sañ-sañ di yónnee nañ ko saytul yenn affaires yi te yenn rapport yi bu ko jotee moom xam am nay information kenn yorul am na ñoo xamante ne nooy jëfee ah, ah, day yëngal ab réew. maanaam am na ñoo xam ne ay rapport joxar bi ne leen baaraamu tuuma bu ñu leen toppee réew mi mën naa yëngatu loolu la président Macky Sall wax maanaam am na def ay ay ñaawteef euh, yoo xam ne ci xaalisu réew mi ay rapport wane ko te ñooñu bu leen toppee réew mi mën naa yëngu loolu nga bëgg a wax. dama ne président dafa ne am na rapport yuy génn am na ay information yu muy jot bu ko utiliser wala bàyyi justice bi suivre kuuram justice bi dem ni mu war a demee mën na yëngal réew ñu yaakaar ne ci ñun ci suñ jàngat président de la république mën xaajaloo citoyen réew mi par rapport ak loi wu bi loi bi li mu santaane ci jëf ak ci daan ak ku woon a def loo warut a def loolu dafa war a mun a appliqué wu moom ba ca man te loolu bu ñu ko kii loolu mooy entretenir li tubaab bi wax impunité cest à nit am sañ-sañ def dara te dara du la topp loolu bokk na ci indi que perception corruption dafa tar fii ci Sénégal corruption dafa lal di fi baawaan d' accord léegi euh, Abdoul bu Bousso yow la ñu invité yow nga nekk membre euh, ci bureau exécutif bu Forum Civil euh, Sénégal ñuy wax ci rapport bi nga xamante ni tey Transparency International génn na ko ñu gis ne Sénégal depuis 2016 ba léegi kon su ma la déggee sax mooy depuis 2016 ba léegi amul yenn jéego yoo xam ne gouvernement bu Macky sàll teg nañu ko ngir xeex li nga xam ne moo jëm ci wàllum guerre te ñun ñëpp ñu xam guerre. mi nga xam ne moom la mën a nërmeele euh, am réew. mënuñu ne defuñu fi dara lu yees parce que euh, constitution bu bees bi 2016 la euh, constitution bi am na lu mu yeesalaat am na ay réformes yu ñu def mais ci perception nit ñi li muy indi ak lu muy firnde mooy que lii war. yegsee guñ ca war a soppi mbir ma wala xar xaram xar kanamu situation covi corruption bi des na te loolu dafa laaj président la république moom ci boppam am yenn taxawaay yu mu war a mun a taxawee dellu ci ginnaaw ci lu mu wax ne am na ay rapport yu mu téyel boppam ñu yaakaar ne rapport buy firndeel ne am na ay xeetu tef yu munti doon loolu dañ ko war a jébal ab justice kañ a tuuma mu dem layoog justice ba fekkee loolu am na ñu dóor ko daan fekkee loolu amul ñu ñu seetal ko ba mu set wecc mais yow gis nga ne euh, impunité euh, bëri na Sénégal ndax gis nga ne bëri na Sénégal maanaam ànd ak nguur euh, def ay ñaawteef ci alalu askan wi wala corps de contrôle yi fi nekk génne ay rapport jàpp ni ñii def nañu ay ñaawteef ñooñu ñu bañ leen a toppee dara ñu koy woowee impunité ndax gis nga ne bëri na si Sénégal. du man maa koy gis wala man maa koy wax. mais président de la République moo moo moo ko njëkk a wax euh, euh, justice bi nu mu tëddee ak nu muy doxee ñëpp gis nañ ko nee nañu procureur de la République au niveau de la procureur CREI vingt cinq personnes ñoo nekkoon ci rôle am anañu nañu édifier sénégalais yi waaw sénégalais yi ñii defuñu dara lu ñu doon toppee jeex na. wala def nañu war nañu leen topp. waaw mais mais man euh, mais man euh, Abdoul Malick Bousso euh, sama problème mooy li ma la wax sànq la ñuy la ñuy si lay dikkaat ka man depuis 2016. su dee tey par exemple Sénégal fa mu nekkoon point yi mu amoon 2016 moom la am ba 2020 man li ma mën a jàpp mooy mathématiquement mooy que état bu Sénégal defuñu benn jéego ci li nga xamante ni tey moom mooy xeex wàllum corruption ak wàllum impunité ndax sànq yow da nga wax ne 2012 bi état bu Sénégal dikkee Euh, indi fi ay nag sensé li nga xam ne euh, defar ay réformes. Euh, am ñu mu topp ci CREI yi. yow gis nga ne rapport Transparency International bi mu ñëwee Sénégal point ya mu nekkoon ay 37 ñëw ba ay 45 points kon gis nga ne Sénégal en temps boobu def na say jéego kon nag su dee 2016 la amoon. ay la yéwén ba 2020 mu am 45 pour man deful ay jéego ma ngi mel ni élève bi doon jàng am moyenne 8 chaque année nga am moyenne 8 si si nga nekk ba tey. waaw ça signifie que jàngoo. waaw ça signifie ja jàlloo. ça signifie que dara dara dara avancé wul ci li nga nekkoon. Mm-hmm. loolu loolu la lool rek effectivement li nga wax loolu moo am Sénégal dafa taxaw te dafa yàgg taxaw 2016 ba léegi dafa taxaw. luy solution bi. solution bi mooy delluwaat que li nekkoon moteur bu bi. Mm-hmm. nee naa la ay réformes la ñuy def. Mm-hmm. impunité topp ñi nga xamante ne dañ leen tuuma. waaw man de def nañu de parce que loolu juge bi ak enquête bee koy wane ci tuuma nañ ne ñii mus nañu yore wala ñu dénk leen as lëf li nga xamante réew mee ko moom. naka lañ ko yoree xel xaw na ci tey ne nañ dem leeral mbir ma te ku koy leeral mooy justice loolu buñ ci delloo fexe ba justice bi ni ko pouvoir jud exécutif bi ŋànkee parce que procureur de la république dafa am ay pouvoir yu ñu war a encadrer. mënuma comprendre que procureur la république jot ay rapport nag am coobare boppam naan puisque man maa am sañ-sañ di poursuivre kii wala di poursuivre kee kii dama koy teg parce que am na yeneen urgence man maa yore opportunité poursuite bi loolu loi moo ko ko may foog ñu noddandi ci loi bi li nga xamante bu jotee xeetu rapport yooyu luy war a tegu ci moom comme taxawaay mooy jébbal ko juge juge d'instruction loolu réforme la laaj encadrer le pouvoir du procureur faire en sorte que ci yenn dossiers yi opportunité de poursuite bi obligation de poursuite lay doon bu fekkee man maay xool sama coobare est-ce que danaa topp wala du topp mais loi moo lay ne ah lii xamuñu dañuy topp mais saytu ba juge ba mooy lijjante mbir ma naan day dem chambre d'accusation wala dama koy classer sans suite donc parce que procureur de la république dafa dépendre ci chancellerie dépendre de ministre de la justice kooku dépendre du président de la république dafa am chaine bu toog ci moom ba nga xamante ne pouvoir exécutif ki ŋànk nguur réew mi mun na fa téye justice bi de telle sort que ni mu waroon doxee moom dina ko orienter ni ma ko neexee te loolu bu dañul yaa ma neex day continuer d' accord léegi euh, kuréel gi nga xamante ni tey mooy nag mhm. bi ko fi président Macky Sall euh, indee. Mhm. ñu baree baree bari rafetlu woon nañ li nga xamante ni moom mooy euh, nag maanaam mébét bi. Mhm. mais OFNAC mën nañoo wax ne boo xoolee est ce que est ce que njariñ li bëri na ndax tey est ce que tamit ndax tey dama dégg ñi nga xam ne ñoo nekk OFNAC di liggéey ñoom nee na ñu bëri na ay rapport yoo xamante ni yóbbul nañ ko ki nga xamante ni tey moom mooy procureur. waaye bu ñu ko xasee ba jox procureur amuñu sañ-sañ sax topp dossier bi wala wala di nemmeeku sax dossier boobu fan la toll wala ñuy woo procureur di ko di gëstu si dossier boobu loolu tey est-ce que of nag jërutoon kon ñu réformer li nga xamante ni moom mooy moom mooy texte yooyu. wallaay li nga wax Abdou Khadre fa nga teg baaraam bi foofu la of nag am na njëriñ rëy ñu ngi defal liggéey te seen liggéey mun na gën a baax. mën a gën a antu parce que am na lu ci des président de la république moo ko waxal boppam nee na of nag bu defee rapport am liggéeyam jaana boo defee rapport nag fekkee boo ko joxee procureur du ko exploité naka sa liggéey di jeexee liggéey mu ngi jeexee fi mbir mi amee impact fi mbir mi di amee changement ci tolluwaay nit ñi nga xamante ne ñoo ŋànk yorinu réew mi of nag loolu lay saytu pour mu xeex guerre wala prévenir ger fokk jumtukaayam ak liggéey bu mu def am comme résultat wàññeeku ger ba te loolu la kulli àll ñi nga xamante ne dañu yaakaar ne ñii yoon war na la leen topp bu rapport yegg si procureur la république procureur de la république dafa war a enclencher machine judiciaire bi loolu moo tax ci réforme yi ñu war a indi ci OFNAC loolu bokk na ci faire en sorte que ni sentif amee sañ-sañ parce que procureur de la république bu jotee rapport sentif loi bi créé sentif amul lu ma dafa obligé procureur la la bu mu jébal ko juge lu tax ñu tënk OFNAC il faut ñu dindi tënk boobu beneen bi mooy que ñi nga xamante ne ñoom ñooy war a def déclaration de patrimoine du président la république moo leen war a ne dem leen defi loi bi moo leen ko sas dañ ko war a def muy benn ñaareel ba. lan mooy ñu def bi. mooy ñu xam xayma yow mii lan nga yore ci alal balaa ñu lay dënk liñ la dënk bi nga yoree liñ la dénk nag sa alal naka la évoluer boo génnee ci liñ la dénkoon fan la sa alal tooy tollu. mais mais est-ce mais est-ce que ministre yi wala ñu war a def déclaration patrimoine est-ce que timing bi respecté nañ ko. respecté wuñ ko ba président la république xaacu seen kaw ci en conseil des ministres te loolu dañoo yaakaar ne dañu warul toll foofu parce que am na lu jiitu kàddu président la république mooy loi la république charte réew mi lu mu dagal dafa tegu ci bopp président la république ak ci citoyen yëpp muy benn ñaareel bi mooy que ni ñu nattee périmètre bi nga xamante ni ñoom ñoo war a def déclaration de patrimoine dañ ko fi ñu ko yemale dañu bëgg ñu yaatal ko koo xamante ne am na liñ la dénk ci alalu réew mi ñu ne un milliard ñun ci suñ coobare boobu dañu yaakaar ne war nañu ko mun a wàcce waaye cinq cent mille six cent millions cinq cent millions quatre cent million te ñi yore pouvoir pouvoir boo ko yore même boo yorul alal bi ngay administrer pouvoir boobu war nañu mun a xayma yow sa patrimoine fu mu toll sa moomeel bopp fu mu toll parce que ku mel ne procureur de la république di àtte ay homme d'affaires wala entre état ak ay homme d'affaires nga xamante ne c'est des milliards am sañ-sañu yore ci loxoom liberté ak dignité nit ñi nga xamante ne ay sénégalais lañu pouvoir boobu boo ko amee li ñu la war a réguler mooy xool est-ce que pouvoir boobu doo ko utiliser sa jëriñu bopp du intéret déclaration de patrimoine ñu élargir ko ak ñi nga xamante ne dañu am ay position de pouvoir wala nga nekk ci ay caisse yoo xamante ne euh, nga nekk par exemple comme ci douane nga nekk receveur poursuivant cest à nga am sañ-sañ homme d'affaires bu ñëw war a. wala ki jiite caisse de dépôt xeet yooyu. voilà xeet yooyu. dafa am xeetu fonctionnaire wala xeetu agent public yoo xamante ne. day day seen déclaration de patrimoine dafa lu wareef la. du waruñu xool rek ci ci caisse bi ñu la confier mais ci pouvoir yi nga am ci machine économique yi. Mhm. ak ci politique bi. loolu war na fexe ba ñu ba ñu defar loolu. li ñu waxoon sànq aussi. mooy ko procureur de la république am sañ-sañ. comme kii sax cour suprême ki jiite cour suprême. ñoom ñëpp. Mhm. que am pouvoir daal nañu xayma. nga yore nga yore lii nit gën a fonk ci àddina lii yàlla dénk bépp mbindeef sa liberté sa dignité man ma am sañ-sañ en tant que juge walla en tant que magistrat naan man maay àtte est-ce que sa dignité war nga ko mun a perdre walla sa liberté war nga ko mun a perdre. même yow kon même procureur nañ muy def déclaration ah patrimoine ñoom ñëpp kay magistrat bu ne nekk ci mesure ci juridiction. nga am pouvoir. même loolu dafay bokk ci xeex ger. day xeex ger. ndax boo nekkee procureur am benn xaalis bi wala benn magistrat dañ laaj xaalis foo ko jëlee. il faut que citoyen yi naw ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk seen mbir fekkee yow mun nga ma tëj il faut que yow buñ la xoolee xayma la seet la du ñu gis dara dara dara lu tilim ci bu fekkee yow am nga sañ-sañ naan ma non sama kaam mun naa ko muri il faut que yow kenn mënu la simmi yow. même conseil conseil conseil ñoom ñëpp ñëpp. ñoom ñëpp. Ah, dëgg la Abdoul bu Bousso ci li nga xam ne mooy déclaration patrimoine ñu yaatal ko si ñu bare bare bari bokk na si liy xeex ger léegi tamit euh, man njariñ li ci boppam euh, dama ko xam nga euh, Abdoul Malick dafa am loo xam ne gis nga yoon loi maanaam dafa tiim ñëpp kenn waru koo jalgati mais dañu gis ne tey ñi nga xamante ni ñoom lañ dénk réew mi bu ñu la waxee na la am nga ñetti weer bu ñu la falee ministre pour nga def sa déclaration patrimoine maanaam ci missaal nga toog lu mat at doog a defoo sa déclaration patrimoine yaa ngi jëlgati yoon te fii ak te diggante bi nga xamante ni tey trois mois yooyu nga waroon def sa déclara déclaration patrimoine soo bàyyee ba mu def ba mu des at fekk yor nga fi ay milliards yi milliards réew mi boobaa leneen ak leneen mën nga si am man na si am mënoon nga am possibilité def leneen ak leneen loolu tamit euh, est-ce que du lëndëmal sénégalais yi. mais loolu la xam nga luy euh, tuuma lu koy dindi moo mu mooy dalal xel ab njiit am njiit danga am lu jafe sénégalais yi wala nit ki nga xamal ne sénégalais yi ñoom la moom lañu ñu wóolu tànn na ko mu tabbala ne la kaay ma donc la responsabilité nga yore pàcc mii yoreel ko réew mi ak askan wi loolu buñ la ko bu la ko yàlla defalee am na taxawaay bu nga war a am bu fekkee nag nit nga ko ñëpp nit nit la. ni ñu def. ay jéego ay charte yu wër yoo xamante ne dina la protéger aar la. léegi. Euh, loolu moo tax. déclaration de patrimoine bi obligation bi ñu ci def. président de la république waru woon nangu nit di toog un an wala deux ans. trois mois yi boo ko deful déclaration de patrimoine prochain conseil des ministres nit ñu war a def la plus xam nga léegi. bu ñu def conseil d'administration balaa nit ñi di dugg saal dañuy valider mandat yi est-ce que am nga sañ-sañ teewee ndaje bi wala amoo sañ-sañ teewee ndaje trois mois mënatoo teewee ndaje conseil de ministres dafa déclaration de patrimoine c'est vite fait. d'accord léegi euh, Abdoul Malick Bousso yéen waa Forum Civil est-ce que seen liggéey ci Sénégal am na njariñ est-ce que am na njariñ li man la est-ce que am na njariñ mooy si misaal 2016 ba léegi fi Sénégal tolloon ci wàllum guerre fa la nekk at mu jot bis bu yàlla sàkk maa ngi leen di dégg yéen a ngi xeex corruption mal gouvernance saa su suñu xëyee mbir mi gën di yokk ci Sénégal seen xeex bi ngeen a xeex yéen forum civil euh, lan mooy résultat yi. ah lii au moins ci débat public bi benn yoon au moins ci at bi nit ñi dinañu toog naan fan mooy tolluwaayu réew mi ci anam yi muy benn. ñaareel bi liggéey bi ngeen di def lu ko sabab mooy que ñuy siiwal ay xibaar. ci yorinu réew mi ba ngeen ngeen jóg di def ay investigation di ci di ci leerlu di leeral mu ñaar ñetteel bi li ci des mooy citoyen yi réew mi ñoom ñoo ko moom. dénkuñu ko forum civil dénkuñu ko réew mi FM dénkuñu ko Abdou Khadre président la république lañ ko def ay ay parti politique yu tabax yu def ay gouvernement yu yu def seen seen politique. fekkee am na lu ci rafet nañ ko rafetlu lu ci war a noddanti nañu fexe taxaw tem ba ñi ñu dénk réew ma dox ci noddanti li ñu war a noddanti. suba ñoom ak ñooñu la ñun luñ ci am mooy xam-xamle. wuti leer indi ko. lu lëndëm ñu teg ci porte torche. la ca des nag citoyen yi la. Hmm. kenn fayuñu pour ñu dem di def li citoyen di def. mais est-ce que seen seen communication tamit baax na est-ce que seen communication wala est-ce que tamit tey euh, yéen a ngi tey tey par exemple tey forum civil bien vrai que am ngeen ay bànqaas euh, départemental wala tey ay communal wala régional mais est-ce que forum civil ma ngi organiser ay panel ay rencontre foo xam ne du dakaar di leeral askan wi fi ger gi toll fi mal gouvernance toll ci yee askan wi communication boobu noonu war dëgg dëgg dëgg est-ce que forum civil ñoo ngi koy def. Euh, ñi bokk ci forum civil moom la ñuy ndekkee moom la ñuy reer balaa ñu tëdd fu ñu toog loolu la ñuy waxtaanee. yéen nga ne ki ñu nekkal Podor ki démb lañ ko doon àtte Saint-Louis. Sambataal Sambataal avant loolu Mujibou Rahman Balde. Kolda Kolda lañ lañ ko def. mun leen saay-saay yi di dugg ci àll bi di def ci gàncax gi lañu ñu ci warul def nañu jokk def def ci liñ ci war interpellé eaux et forêts gars yi na dañ ko daf leen tuumaal yóbbu mbir ma gendarmerie di leen xoxatal ça fi simplement que fu forum civil toll ñu bu ñu wax dara dañ koy firndeel te ger ger mooy yàq ab réew ger mooy naxasal bankaasu réew ger dina yàq koom dina yàq paj mi dina yàq njàng mi parce que alal bi réew mi waroon dugal ci njàng mi ak tàggat xale yi ak gunge leen tabax leen pour ñu mun a dékku àddina loolu day naxasaay te loolu mooy lay ger di indi te loolu moo tax ñun ñu choisir ko booy xeex ger moom ngay indi base développement économique ak développement humain loolu moo tax forum civil moom ci anam yu ne tàggat na ay journaliste ci xeex ger waxtaan na ci ak ak ak ak ak waa assemblée nationale pour ay loi yu ñor woote yu mel ne déclaration de patrimoine loi sur le conflit sur les de d'intérêts sur le financement des partis politique ak campagne électorale yi sur les réformes judiciaires loolu yëpp ay bànqaas loo xamante ni dañ ci waxtaan ak yéen dañ ci waxtaan ak journalistes yi te lu ci des ñu ngi dem ci gox yeeg gox goxaan yi di waxtaan ak askan wi di mettre en place même ay comités citoyens yu saytu collectivités territoriales yi naka la ñuy liggéey naka la ñuy améliorer seen liggéey lan mooy fiscalité local lan mooy euh, euh, budget communal ak la yàlla la ci citoyens yi war a séntu naka dañ ko war a tawaxee yooyu yëpp pour que nit ñi am ay jumtukaay parce que ñun dañu gëm ne du ñun ñooy noddanti wala pouvoir wala nguur gi citoyens yi ñoo war a xam lan mooy seen moomeel lan mooy seen wareef. muy journaliste muy ku mu ci ku nu mënti doon nga jóg ba bës ba nga taxaw fi nga war a taxaw lijjanti li nga war a lijjanti. Euh, jërëjëf euh, Abdoul bu Bousso membre euh, la ci bureau exécutif bu Forum Civil moom la ñu invité tey ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM mu yam samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu. léegi rapport bi ñu wax ci tuuti te doog doog bàyyi mooy rapport bi nga xamante ni génne nañ ko mais rapport boobu yéen Forum Civil Sénégal yéenay jël information di ko jox waa Transparency International. wala ñoom am nañu kuréel goo xamante ni bu ñu bëggee am xibaar ci Sénégal euh, maanaam fan la ñuy sukkandiku daal pour génn rapport boobu. Euh, jërëjëf sànq ci ndorteelu waxtaan bi maa ngi lay wax ne euh, transparency transparency international dafa yore xeetu jumtukaay yu bëri yu ci gën a fës mooy IPC bi moom mooy xayma li ñuy wax grande corruption beneen bi muy baromètre de la corruption mooy xayma li ñuy wax petite corruption. IPC euh, dañ koy tibb ci ay indicateurs yoo xam ne dafa nekk ci ay rapport bànkaas yu mag yu mel ne banque mondiale mel ne Fonds monétaire international muy ay ay cabinet d'analyse de risque financier risque pays ñoom dañuy saytu investissement bi fan la war a dugg yan kaaraange moo ci am pour investissement bi mucc lan la jur kiy investir ay yu mel na banque africaine de développement yuy gunge réew yi euh, ak bër yu gunge réew mi dajale koom bu leen mën a may ñu transformer seen économie euh, rat euh, rafetal dundinu askan wa loolu nag bu ñu ko jukkee dañu am méthodologie bi ñu koy traité information yooyu méthodologie boobu moo leen di indil ñu am ay indicateurs indicateurs yi renseigner euh, ay critères critères yooyu ñoo leen di xool ñu def benn échelle échelle boobu c'est de 100 à 0. comme yan genre critères. yooyu mooy euh, par exemple accès de l'information mooy euh, marché public yi mooy justice bi mooy le traitement des affaires ay critères quelle la perception des gens. Euh, projet yi projet yi naka lañ koy construire yan résultat la atteindre euh, quelle est la qualité du suivi am na ay xayma yu critères yu bëri yoo xamante ne euh, partenaire finance technique financier bu nekk organisme bu nekk am na nooy traité ak nooy xayma résultat yi ngay am ñoom nag ñoo am ñu importer données yooyu yëpp banaan de différentes sources ñu analyser ko produire li ñuy wax IPC IPC bi nag mooy xayma ci réew bu ne entre une échelle de 0 à 100 booy jege 100 mooy que ger dafa wàññeeku ba du yàq doxino réew ma plus que nga koy sore plus ger bi di gën a bëri donc ku jege 0 entre 50 et 0 mooy que yow war nga def ay jéego parce que ger gi. moo téye ngànk sa réew. d'accord mais yéen euh, rapport bi bu mu génnee ban communication ngeen ci def yéen waa Forum Civil. Euh, yéen jot ngeen ci je crois que moo waral sax euh, suñu daje tey bi xam nga rapport bi dafa concerner réew yépp ñun liggéey bi ñu ci def dañoo jukki ci rapport li intéressé Sénégal li intéressé ñi Sénégal yi jëflante muy. u mois mooy suñu première union économique ensuite ñu xool CEDEAO parce Sénégal daa bokk ci deuxième ci ci ñaari union yi ñu xool Afrique suñu tolluwaay en tant que tolluwaay ak ñi ñu bokk UEMOA suñu tolluwaay ak ñi ñu bokk CEDEAO suñu tolluwaay ak ñi ñu bokk Afrique suñu tolluwaay ak ñi ñu bokk monde bi lu nekk ñu def ci xeetu jàngal mais ñun de lii moo ñu yóbbee Mbawor lii mooy suñu sikk sakk lii mooy suñu problème lii mooy suñu problème lii mooy suñu problème lan moo koy faj ci suñu yaakaar ak suñu gis-gis bu ñu defee nii bu ñu doxee leen nii bu ñu noddantee fee xëy mu jural ñu lii ku nekk nag ñu jukki yow yan xeetu recommandation lañ lay defal ñu recommande def ay recommandation jëmale ko ci njiitu réew mi président de la république ñu jëmale ko ci assemblée nationale pencu ndaw yi ñu jëmale ko ci cour des comptes mooy saytu compte public yi ñu dem jëmale ko ci ministre de la jeunesse parce que xeet ger boo koy xeex puisque mag ñi rëcce nañ la na nga tabax ay système de valeur ci tout tànk yi puisque moom moo ŋànk jeunesse lan moo war a nekk taxawaayam donc ay xeet ak ñi nga xamante si dañuy jëflante ak Sénégal mooy partenaire technique ak financier yi lan moo war a nekk seen taxawaay. d'accord euh, jërëjëf euh, Abdoul Malick so xam nga dinaa defaat benn reproche ci euh, forum civil Sénégal man sama gis-gis ak sama jàngat mooy yéen communication bi ngeen di def ci rapport bi communication la boo xam ne ci sama xalaat am na lu baree bari loo xamante ni des na ci ni ngeen koy communiquer depuis 2016 ba ba léegi ndax tey rapport bi su génnee. su paasee ñi nga xamante ni tey ñooy ñi ñuy wax ñiy liir journaux yi wala ay quelques personnes maanaam minorité bi ci Sénégal ñoo yëg sax ne produire nañ li nga xam ne mooy rapport rapport bi génn ak ger gi fan la toll ci Sénégal ndax rapport bi su génnoon waxuma at mi ñu nekk ndax jamonoy coronavirus lañ nekk mais su ngeen ci rapport bi su génne woon ngeen def ci cérémonie bu mag université par exemple UCAD xam ne université boo xoolee njaboot goo man di gis am na doom buy jàng bu nekkul université ab élève boo xamante ni xamante ne ak ku nekk université ndax université pour nga def benn xayma rek ci Sénégal xayma ko biir université ndax ci Sénégal gi yëpp mën na ñoo xam ne entre guillemets ñoo fa daje ñoo fa dajee ngeen def ay cérémonie ci université yi nekk ci Sénégal école yi ngeen ko mën a def ngeen invité société civile bi invité journalistes yi invité étudiants yi invité avocats yi invité députés yi Euh, su ko defee dina nekk communication boo xam ne vraiment sénégalais lambda bi non seulement dina ko dina ko xam beneen bi ngeen expliquer ci langage yépp mbir mi mais man pour man jàpp naa ne communication boobu vraiment société civile euh, forum civil war nañu si gën a taxaw. waaw dëgg la xam nga communication moom du doy pour mu gën a yaatu. mu gën a amal askan wi njëriñ. gis nga li nga wax ni pour te montrer que forum civil daf ko jëmmal. suñu section cinq département yi dañoo jot IPC bi li ñëpp jot ñu ne leen da ngeen di nëggandiku defal nañu liggéey bi mais fi koy TI di siiwal ci monde bi ñun ñu siiwal ko au niveau national yéen au niveau local. Mm-hmm. au niveau local liggéey bi ñu liggéey au niveau national ku nekk ci section yi da ko war a liggéey ci niveau local. Mm-hmm. wax nga léegi université yi. on a une section universitaire ñoo war a jël seen motukaay. Hmm. mais mais gunge leen waaw ah, non non am na mooy ku nekk ci ñun am na ay responsabilités yoo xamante ne charte forum sax moo la ko jox. Hmm. xam nga ñu mën a orientation jublukaay ñun bureau exécutif niveau stratégique la ñuy ne dañu ne fii la ñuy jublu mbir mi jot na nii lañ koy defee ñi ko war a def. xam nañ ko niñ ko war a defee xam nañ ko loolu texte yi fondé forum ak philosophie forum moo tax ku nekk ci ñun am nga indépendance bu ñu la nee kaay wax ci lii am nga jumtukaay doo xaaral ma laaj Birahim Seck waxal li la forum waxloo desal ci suñ cadre stratégique loolu moo tax gis nga ndaw ñooñu ngay wax jot nañu jumtukaay yi war a def ci université yi ak ci amicale yi parce que université xëy na munoo ci Covid bi fu mu toll invité ñëpp ci benn auditorium am nañu ay jafe-jafe ci yooyu mais mun nga defal la nga rek mun nga amical bu nekk xam nga Touba am nañu ay amical bu nekk Université Dakar waa Fuuta am na ñu nañu amical union yooyu ñooñu la ñuy dajale ku nekk ci ñu dem ci ñu am ay lël di waxtaan euh, section locale yi rajo communautaire yi cadre yi conseil de quartier yi ay tolluwaay la nos section entre dans les quartiers. d'accord pour discuter ci ay fora. d'accord mais xam nga tamit euh, am na solo mais. Euh, mais mais mais est-il que. d'accord euh, ko war a yokk. waaw ay yéen même yéen tey xam nga Sénégal fi mu toll nguur gii li nga xamante ni tey moom lañ leen di tuumaal ci ay ndëngate yoo xamante ni def nañ ko. waruñu ko waxtaane ci benn fan ñaari fan benn benn semaine amul ñee ko war a xam amul ñee ñoo ko war a xam li ma doon expliquer sànq tey par exemple tey mënoon nañu defar ay mënoon ngeen a defar ay flyers ay flyers yoo xam ne da ngeen di wax ne Sénégal ma ngi ci jaune rouge flyers yooyu ngeen dem ci marché yi ah tey par exemple tey euh, euh, Abdoul Malick marché Castor euh, yi nga xamante ni tey ñi nga xam ne ñooy yelwaan wala ñi nga xam ne ñooy wayeeg yooyu de yor nañu ay xeetu micro. ngeen jël benn micro jaar ci biir marché bi xam ne ñëpp a fay dajee nga ne Sénégal kat nañu moytu ndax deltu ndax fi ñu nekkoon ci wàllum guerre ba léegi ñoo nga fa ger nag dafay daaneel am réew jàll université nga def ko fa def ko feneen ak feneen jël ay flyers ngeen jox ko euh, transporteurs yi communication boobu dina gën a yaatu wala da ngeen amul moyens yi. Euh, am amuñu moyens yëpp dañu waxante dëgg amuñu moyens yëpp mu ñu déployer aussi dans tous les marchés. il faut nga am fooy jaar da ngay am ay relais boo gisee ñuy woo ay journalistes di leen tàggat en investigation parce que li ñu war a mun a def ñoom ñoo ñu ko gën a mën a def parce que enquête journalistique technique la journaliste yi traitement information dañ ci yàgg ni ñuy jottee ak ni ñuy jottalee xëy na man mi buso mhm. mun naa taataan wante jottali boobu dina des loolu moo ñun il faut ñu am ay relais mhm. yéen ci relais yooyu ngeen bokk dañuy tàggat ay journalistes ci xeex ger sur le blanchiment des capitaux sur les flux financiers illicites mooy li nga xamante ne alal li ñuy luubal di ko génnee bitim réew muy dellu si fii comme alal boo xamante ne dañ koy investir fekk dañ ko raxas ba mu set fekk ñaaw xeetu ñaawteef yi ko jur dinañ fexe ba ñu fàtte ko yooyu yëpp dañu leen ci euh, wutal ay ñi nga xamante seen xel dafa màcc ci yooyu ñu jàngal leen naka ngeen di mën a discerner yooyu information loolu yëpp dafa wone ne que mbir mi du problème mu forum civil du problème mu euh, société civile du problème mu état affaire corruption ak gouvernance citoyen bi lay war a yitteel citoyen bi nag ku ko war a yee ak lu ko war a yee ñun ñëpp la hmm. c'est interpeller ñun société civile war a defaraat suñu taxawaay parce bu leen fàtte ne société civile bi du forum civil rek ñun ñu bëri ci ñun dañoo war a xoolaat suñu taxawaay yéen ñii journalistes yi. Ah, effectivement ni ngeen di traiter information ni ngeen di mettre en valeur une information par rapport à une autre ngeen war a xool lan moo war a am njëriñal askat bi. effectivement ngeen euh, ngeen dox ci loolu. Euh, loolu nga wax noonu am na solo xam nga tey par exemple tey mbirum guerre dafa am loo xam ne da ngay dégg journaliste yi naan la ay fii la ñu war a yem wala faa la ñu war a yem. réew mi nga xam ne fi nga nekk nga juddoo fi yaroo fi sag njaboot nekk fi ëllëg say sët ñoo fi nekk réew moomu ak koo man doon da nga war a participer ci li nga xam ne moo koy euh, jëmale kanam comme li nga wax nii nag sànq man mooy reproche bi ma defoon forum civil joxe ci sama xalaat ci li ngeen di communiquer ak seen doxalin mais tey bi rapport bi génnee maanaam ger garaaw na génn xeetu garaaw goo xam ne man jàpp naa sax ne journaliste yi dañu ko ñàkkal fayda ñàkk koo jox yitte ndax li waroon mooy bi bi rapport bi génnee ci li ma xalaat journaux yëpp danañ si def à une danañ si def ay ay focus danañ si def ay papier danañ ko ñaawlu kenn ku nekk dina ci def sa commentaire wala nga def sa analyse mm. mais loolu lépp gis naa ne amul ci ëttu taskatu xabaar yi mais loolu tamit problème la léegi euh, docteur euh, yow euh, Abdoul bu soo ñu wax nag ci li nga xam ne mooy corps de contrôle yi. Hmm. corps de contrôle yi yow amaana gisin bi nga xamante ni moom nga koy gis ak gisin bi ma koy gis dina dina dina am wute hmm. ndax man damaa jàpp ne corps de contrôle yi teg corps de contrôle kese. du loolu mooy nekk njariñ hmm. man jàpp naa ne corps de contrôle yi nekk Sénégal amul benn njariñ man loolu laa jàpp li tax ma jàpp loolu mooy man bi ma xàmmee ba léegi bis sàkk. damay dégg ñu ne ñu at muy rapport génn na mais bu rapport bi génnee dafay jàpp yokkar bi baaraamu ay ministre ay jegeñaale yu nguur te ñooñu su dee tey par exemple tey ci nguur la ñu nekk amul lenn lu leen ciy fekk te man bi ma Macky Sall bi mu toogee ba léegi rapport bu génn jàpp na baaraamu tuuma ci ay jegeñaaleem ka ne def na ay ñaawteef ay luubal ci alalu askan wi te dara fekku ko ci léegi kon léegi lan mooy njariñu corps de contrôle yooyu Euh, jërëjëf euh, sëñ Abdou Khadre xam nga euh, boo leen ne amuñu njëriñ parfois da nga koy da nga leen di tooñ wala nga tooñ législateur bi parce que corps de contrôle njëriñam mooy mu contrôler mais premier corps de contrôle bi Sénégal am avant sax ces organes de contrôle mooy assemblée nationale penc mu ndaw yi le peuple bi may sañ-sañ contrôler gouvernement ak liggéeyam président de la république lu neex lay def ci biir assemblée nationale. kon assemblée bul njëriñ. assemblée nationale. non man amul njëriñ laa jàpp. waaw dafa dafa xam nga lu indi loolu. li indi loolu mooy que dañu am système de gouvernance boo xamante ne dafa déséquilibré ba nga xamante ne organe bu nekk rôle bi nga waroon jouer mënoo ko jouer parce que am na lu la lu la bloqué. kon baaxut. de du question baaxul problème mu noddanti la xam nga mbir mënoo ñëw rek ne da ngay effacer lépp defaraat mais organe dafa am euh, li ñuy wax le jeu des pouvoirs bu ñuy woowee ay pouvoir on a le sens d'équilibrer lu pouvoir mais dans la constitution du Sénégal on a déséquili nañu déséquilibrer pouvoir yi jox président la République muy buur di bumi de même yeneen loi ak yeneen yeneen article constitution yi nga xamante ne am na lu mu jëmmal jëmm boobu mënul taxaw jëmm boobu mënul antu parce que quelque part am na lu ko faagaagal. d'accord te loolu euh, boo defee lecture simpliste rek dangay mel na sang xale bi jël ndox mag xale bi yëpp tuur ko am na lu ñu war a sàng nañu sàng bébé bi ba bébé bi set. ñu lëmas ko génn ko tuur ndox mu salte wa loolu mooy indi réforme yi nga xamante ne Sénégal daf cee war a dem da nga gis président de la république ñu ne léegi ARMP directeur bi ñaata mandat lay def temps de mandat lay def mandaam jeex na président de la république war ko dindi dafa keneen ndagam organe bi ni muy fonctionner arrangé na ko wala kii mu fa teg arrangé na ko mu bàyyi mbir ma noonu waa ji buñ ko newul demal du dem bu ñu indul keneen moom du dem mbar ma tàggatembe mel na ARMP par exemple directeur baa nga fa ça au moins plus de à quatre ans yoo xamante suma mandaam jeex na Sénat ki ko jiite moo war a saytu élection wu Sénégal mandaam jeex na ba léegi kenn dindiwu président la république moom lañ ma ñu sañ-sañ moom mooy nommé mooy folli président Sénat bi mandaa am bu jeexul amul droit folli ko mais bu jeexee amul droit maintenir ko. mais léegi moom bu ko maintenir illégalité boobu illi mais illégitimité boobu day fex ne ba gëdd bi organe boobu waroon am. dootu ko amati ci perception nit bi yow nga kii amul fayda. non lii baaxul euh, amul benn njëriñ non dañoo muur ci moom lu koy tere am njëriñ moom waroon am léegi nag dañ ko war a muri. d'accord léegi moo gën nga naan nañ ko sànni. d'accord léegi euh, Abdoul bu Bousso loolu mooy sa xalaat euh, ci mbir mi mais man sama xalaat ci mbir mi organe de contrôle yi ci Sénégal nii muy doxee. su dee noonu lay continuer doxee amul benn njëriñ ndax xam lu tax mën a wax loolu. tey par exemple tey Abdou Khadre parce que ni ñuy doxee. li leen li loi bi sant ñu koy def loi bi moo leen yemee may dañu def investigation ki nekk ministre de l'éducation. Euh, est-ce que non est-ce moo la wax na la boo defee rapport heure bu la neex nga koy génne est-ce que logique nangu na nga def rapport 2016 génne ko 2019 est-ce que loolu logique. loo loolu ils sont hors la loi. mais loolu être en dehors de la loi ci anam yi. loolu moo tax mën a woon la sànq dañuy éviter jël bébé bi ak ndox mi yëpp sànni ko li tilim mooy lu mel noonu parce que loi bi xam nga dafa ne am na rapport yoo xam ne président de la république wax na ko ci discours am moom mooy moom lañ jagleel rapport yi bu demander une mission d' investigation IGE jóg di defi mission moom mooy commanditaire mission bi rapport yooyu moom lay jot mais IGE dafa am rapport bu mu yoreel sénégalais yi rapport boobu mooy rapport de la gouvernance rapport boobu mooy xayma tolluwaayu réew mi rapport boobu da koy ci ci yar ak teggin président la république que mooy njiitu réew mi moom la ñuy jox teraanga pour mu yëg ku ko yëg mais fekkee moom ci coobare boppam wala du coobare boppam agenda am mayu ko muy jot ñoo ñu ñu ñu ñu jox ko ñu jox ko rapport bi boo ko defee mais si wala sa rapport bu ko denc di xaar président de la république. parce léegi léegi li ma bëgg li ma bëgg laaj mooy rapport yi nga xamante ni tey depuis mille 2012 ñoo ngi ko fiy génne muy rapport euh, ARMP ay Cour des comptes ay euh, inspection générale d'État rapport yooyu nga xam ne Macky Sall moom njiitu réew moom moo ne am na yoo xam ne moo si teg coñcam yenn yi moo ne am na ñoo xamante ni. mënuñu leen a topp ndax dëkk bi mën naa yëngu est-ce que rapport yooyu bu demoon ba président Macky Sall wàcc jóge fi beneen président bii ñëw est-ce que mën naa exploité rapport yooyu. bien sûr bien sûr rapport xam nga lan mooy fee lan mooy prescrire mooy euh, yoon ne xeetu ñaawte fii nga def am na diir boo xamante ne diir boo xamante ne bu ñu la ci toppul bu ñu la ci toppul. mu far. waaw mu far mais loolu bu amul mu mel ne ay crime économique dix ans la am na yoo xamante ne loolu président bi bu amee sañ-sañ def ko keneen ki bu ñëwee am na sañ-sañ fulli ko lu gën a lu ma la bëgg a wax mooy que boo liiree rapport yi enquêteurs yi corps de contrôle yi. parfois dinañu def liggéey bi war bu ñu demee en mission rapport bi feeñal na ay affaires yoo xamante ne la ca war a topp ci rapport ya loolu le président de la république tënk réew mi tënk justice bi. c'est pas normal. voilà <laughs> mais loolu est-ce que fóotu organe de contrôle lii la même si fekkee ne seen liggéey am na fu mu bloqué am na fu mu sookee te loolu ci loi yi leen créer xam nga sànq maa ngi la doon wax ak ARMP ARMP mënul di saytu commande publique bi ak marché public yi nekk foo xamante ne siège pouvoir yëpp fa la ne président de la république mooy tutelu ARMP lu doon gën te première recommandation boo gisee ñu yóbbu na ci primature génn ko ci président de la république c'est président de la république wala présidence de la république dafa dafa diis lu nekk ci suufam rek doo doo doo naayee ni nga bëgg a naayee ci sa exercice ak sa liggéey loolu moo tax ñu ne dañ ko sempi génn ko ci tutelle présidence de la république et ak yenn yeneen kuréel yu rëy yu bëri jërëjëf euh, Abdoul Malick Bousso fan yële dama dégg ci presse bi ñu ne dafa am benn cellule italienne boo xam ne dafay saytu ci lu jëm ci wàllum xaalis buy dugg ak buy génn mais gis nañ ne Sénégal réew la moo xamante ni daal njort nañ ne blanchiment d'argent bëri na fi ak xaalis bu ñu njort tamit ne dañuy dañ ciy financer lu jëm ci wàllum terrorisme euh, yow lan moo ci sa xalaat en tant que membre euh, bureau exécutif Forum Civil. xam nga loolu la ñuy wax ne blanchiment de capitaux. ak euh, financement terrorisme euh, réew mi dafa am fu mu féete fi ñu nekk fi ñu woowee Sahel Sahel li ko caractériser actuellement mooy li ñuy wax extrémisme violent xeetu ñaawteef yi am Mali Burkina Faso Niger euh, daf ñu wër lu mel ne Sénégal dafa am benn cercle de feu safara moo ko wër te safara boobu ci li nga xamante ni italiens yi wax nañ ko te CENTIF di ci liggéey fii au Sénégal ñun forum civil ñu ci liggéey war na fexe ba alerter ñu bu waxuma ne am na walla amul mais mën na ne lu mën a nee nag li tubaab di waxee vulnérabilité la c'est-à-dire bunt la boo xamante ne saay-saay walla ñi yorul jàmm mën nañ fa jaar pour yàq réew mi walla yàqal waa réew mi donc dafa flux financier yi transfert d'argent yi ak xaalis bi dugg ci réew mi war nañu fexe ba xam origine ba ak destination bi. mais yéen euh, forum civil ak yeneen ONG yeneen kuréel yi euh, dañuy faral di dégg ñu ne dafa am ñu nekk si seen ginnaaw di leen finance di leen jox ay fonds lan nga ci euh, indi comme explication. waaw c'est normal. que fekkee da ngay liggéey am ñu la gunge ci liggéey ba la ca des mooy que yow li ngay liggéey est-ce que gëm nga ko est-ce que réew mi ngay liggéeyal walla sa bopp ngay liggéeyal euh, président la république euh, non Sénégal gouvernement bi union européenne da koy financé n'est-ce pas. Mm-hmm. Euh, union européenne day financé forum civil. Mm-hmm. réew mi. gouvernement du Sénégal war na mun a dem Union européenne financé ñun forum civil waruñu dem euh, Union européenne financé ñu pour liggéeyal réew mi ci lutte contre la corruption dafay ay enquête kon am ngeen kon am ngeen moyen. cest dire xam nga euh, euh, bailleurs yi nu ñuy defee ñoom dañuy am benn programme programme par exemple programme bu benn ne gouvernance Oxfam ñu ne ñun de dañoo bëgg li xeex ndóol. bon ku mel na Enda man de am na ni may xeexee ndóol damay dem ci gox ya gox goxaan ya di teete jigéen ñi ak ndaw ñi ñu def ay périmètre villageois di def ay jardinage di def yi xeet pour am seen autonomie forum civil ne ah man de pour xeex ndóol yaakaar naa ne li tere fonds publics yi dem ca xeex ba infrastructure ya école ya euh, xale yi mun a liggéey ñu mun a defar ay ay ay ay forage yu baax xaalis ba waroon dem foofu am na fu muy seeyee fàtt buntu seeyukaay yooyu dina xeex ndóol ñun ñu ne lii lañu ñu bëgg programme liggéeyee ci programme bi mhm. bailleur bi nañu a ah, ñun de nii lañ leen di joxe résultat yi la ñu soxla ñun ñu ne leen ñun nii la soxla nii lañ ko mënee résultat yi la ñuy waxtaan ba juboo bu ñu jubee dafa un accord contractuel kay jox ñu seen fonds ñu def liggéey ba jébbal leen ñun wut ci li ñu ci natt. ñoom fonds yi dugg seen poche. man mi euh, je suis membre du bureau exécutif du forum civil on est on est dix kenn ci ñun wàññeeku na ci fan yale passé yàlla na ko yàlla yërëm muy suñu doyen Mbaxane Fall yàlla na fi mu jëm gën ko fi mu jóge kenn ci ñun kenn ci ñun fayeekuwul ci programme forum civil suñu charte daf ñu tere tere jël dërëm ci forum civil pour suñ coobare bopp wala dig ci fayam bi may ñëw léegi sama taxi maa ko fayal sama bopp. d'accord léegi euh, <laughs> Abdoul Malick Bousso euh, waxtu wi euh, jeex na benn question mooy xaalis bi ñu dégg ñu ne Union européenne daf koy jox Sénégal pour xeex immigration clandestine coow lu mel noonu jóg si ba Boubacar Seye bi jiite Horizon Sans Frontières ñu jàpp ko si kasu bi yow lan moo ci sa xalaat. yaakaar naa ne wax sa opinion waru jar nit ki di dem kaso gisuma lu mu fa lay. Euh, lu waral euh, ñu koy xaañ liberté li ci des mooy euh, président de la république am na lu mu laaj nee na ministre des affaires étrangères na ko leeralal fonds yi ñu wax ne dugg nañu Sénégal pour xeex immigration clandestine parce que fokk ngeen xam ne européens yi naam ndimbalu Sénégal la ne seen ndimbal la ñoom dañuy xeex suñu ndaw yi nga xamante dañuy jóge fii ñi jël looco yi di dem foofu ñoom la ñu bëgg a fexe ba doon ñëw xëy na ndimbal mi dem ci euh, takk der yi ci gaal yi leen war a intercepter ak yeneen programme yoo xamante ne encourager ndaw ñi ñu rester fii euh, yenn ndimbal yi dina jaar ci seen ay ONG ñoom suñu ay ONG fii walla ci keesu nguur gi loolu xayma bi président la république ak l'enquête bi mu laaj moo koy feej leeral kon maanaam enquête bi enquête bi bu génnee mën naa am xaalis bu Union européenne joxe boo xam ne demul sax ci état directement mais ci ONG la dem. mun na nekk ci ONG yi mun na nekk ci état bi mun na nekk ci ñoom seen bopp parce que dañu yore seen pexe pour lutter contre la corruption euh, l'immigration am na aussi ay réew yoo xamante ni dañu leen intérêt immédiat ñu liggéey pour xeex immigration bi mu mel ne Espagne Espagne dafay intervenir ci ak ay ONG yu bëri fii pour fixer nit ñi te loolu. balaa ñuy xam fan la dem te ñun njort nañu ne ci information ñu jot du état bi jot lépp foog nag ñu xam ñoom lan lañ jot. d'accord ñeneen ñi lan lañ jot pour mun a xam aussi destination bi ak lan la jur. parce que li intéressant intéressant mooy que xaalis bu duggee dafa war a am résultat dafa am war a am lu mu jur bu ko jurul tamit tere mun a ne sax fekk nit ñi euh, jëfewuñu ko seen jëfu bopp mais yorin wi ak nuñ ko defee. moo mënul jur résultat yi ñu ustaas jërëjëf euh, Abdou bu Bousso euh, forom Civil euh, waxtu wi jeex na ñoo ngi lay sant di la gërëm lan ngay tàggoo. xanaa di kontaan rek di nuyuwaat say auditeur di leen jox dig daje di ne man toujours damay bëgg ñëw fii ci seen ay émission réew mi FM moom moom daanaka suñ sama rajo la. <laughs> jërëjëf euh, Abdoul Malick Bousso mbokk yi moom la ñu invité woon tey muy membre ci bureau exécutif bu forum civil euh, moom la ñu invité woon di ko sant bu baax di ko gërëm euh, mbokk yi li moo nekkoon seen émission pencum réew mi ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diaw Diallo moo nekkoon ci wàllu machine bi samedi bu jot lay am bu 15h jotee jàpp 16h jërë ngeen jëf jàmm ak jàmm.